suñu vidéo bi nag koo ko gis vidéo sant yàlla la ak mbégte jëm ci kan soi-disant personne non grata ak Kaolack ñu ne Khalifa Wade la tudd xaw ma kooku Pape Demba Bitèye du génn di ko tontu ñun ñoo koy tont ñu ñu ko xam démb xam ko tey fi may njëkkee mooy basta bi mu wax yow lañ koy laaj parce que ñun xam nañ li beneen bi ci des mooy Pape Demba li mu réew ci Senelec booba yaa ngi tëdd di nelaw te boo sañoon mel ni moom nañu respecté suñu moomeel Pape Demba fierté Kaolack la. nañu téye li ñu am chantage yi dafa war a jeex ñaan nga ko mayu la topp nga ko jàppale wu la te yàgg na laa jàppale yàgg laa dimbali yàgg laa taxaw ñun waa kër Pape Demba xamuñu wax ju ñaaw mais ku laal Pape Demba di ñu laal parce que Kaolack lañ dëkk tey jii bu néewul ñibbi leen biir Kaolack la ñuy reste yéen bu ñeel ñibbi leen da nga am foo leen jëm te ñun amuñ sens interdit Kaolack Dakar du saf ñaari yoon topp nga Ablaye Wade ba mu daanu nga bëgg ñëw topp Macky Sall di taf di teppi arrêté leen yow kenn du la déglu Kaolack gii ngay wax naan damay woote appel bu sorel maa ngi koy lancé Macky Sall Macky Sall danaa xam Macky Sall nu mu lay dégloo Macky kenn lay déglu Kaolack muy Pape Demba góor ñu baax ñi ak góor ñu baax ñi fexe nañ bam am ci luñ téye ñun géwél yi sax bàyyi nañu nañ wayaan duñ wayaan nit ngir mere ko ci alalam Pape Demba def na ay performance am Senelec lu ne def ngeen ko dugg na ci làmb ji ngeen topp ko dugg na ci euh, Senelec def résultat jëlee na courant bi ci géej gi bato baa ngi taxaw centre Awélène baa nga tey ba Njaay ci la ne ko ci mbalit mi solaire baa nga ko woon mais lan ngeen bëgg dëkk yi lëndamoon taal na ko président Macky Sall def ngeen fa wax ngeen lu la def ngeen këru diine yi foo la dem ngeen ngir jaxase sëñ Mountakha gërëm na ko sëñ maa yi gërëm na ko sëñ Baye Sall bu gërëm na ko Laayeen gërëm na ko Canaba gërëm na ko Macky Sall mi nga xam ne mooy borom réew mi gërëm na ko ak papa Moussa Niass Sénégal yi gërëm nañ ko waaye waaye keneen ko xalab wax dëgg yàlla nag li Pape Demba chantage yooyu jeex na ñun ñooy jug ñun la ay liet naam parce que waajal nañu ba incha allah lépp loo xam ne bëgg na ko kaw dinañ ko def te nag ñu ngi leen di xaar dangeen ngeen di woote marche kenn kaw la xamul leen di boo génnee di dox ku lay xam ak kan ngay woo def leen ndànk wàcc leen dënn yi te nangu nangu dogal bi suñ borom moom la fi teg mu ngi def ay résultats am solo maa ngi lay conseillé ndeysaan législative yi ci Pape Demba nga ñëwoon ànd sa sa benn xarit Baba Ndiaye lu ne nga koy def fu ne nga dugg fa tey boo toogee ne di ko xalaat waaye nag wala Ndiaye nee na bu doon ak ñi cëlima ñi bale kenn du leen fay Pape Demba bi tey moom la fi yàlla teg tey na xamal naa la benn mbir wax ji ñu ngi la koy bàyyiloo xel bu baax nga xam ne li ñu xam bari na kaw Kaolack lañ dëkk te dem Demba du tontu de parce que romb na la bu yàgg ñun sax duñ tontu am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi waaj a ñëw sa kaw.